ndax texte ñu jox la texte wala nga improviser boo ci gën a nekk à l'aise ah, ñun nag Pikini production comme ni ñu koy waxee texte la ñuy liggéey. je parle pas de Pikini yow en personne. en personne nga gën a nekk à l'aise ñu jox la texte wala nga impro. su ma soo ma joxee ma improviser soo ma joxee texte ma dem. soxna bu tooy instant bi su ma la nu nga jooy est-ce que di nga mën a jooy. waaye yéen eh kii yéen eh. eh. soxna bu tooy jooyee nañ ñu ko may. reetaan na <laughs> déedéet na jooy. soxna Bato jooyal. dëgg maa bëgg a jooyloo. Eh, wal ñu maar ah, boo woowee maar léegi <laughs> ci am na ma jooyal. na ma jooy. jooy. moo gën a mën naa ne man ma jooy moo gën a facile ci ci ci ci ci li may joué genre soo gisee may jooy sama yaay man bi ma jur. Mhm. daf ma woo téléphone may jooy di tourné di jooy di jooy mu woo ma téléphone seetaan ko ne ma yow da ngaa suuf sa jooy yi de dafa bari man soo jooy rek may jooy sa morom bi bu ñuy suwee ay jooy dañuy jooy jooy yu yem rek. te yow da ngay jooy jooy yu metti ba ma lay yéeram. <laughs> donc am nga facilité jooy bi. facilité boobu nga gën a am ah, ah, ci euh, formation bi. tout ñu jeexal aussi. waay ñu waxtaanee digganteem Marlo. Ah, mhm. euh, dégg nañ Sénégalais wax nekk ñoom ñaar seen diggante parce que tellement ni nga xamante ni am nañu ko jegeyantoon nañu ko ci euh, série bi. ñu Marlo mu ngi koy a takk. voilà voilà relation dafa am. mais sama a doon dëgg. am am li ñuy dégg wax ko. <laughs> non bu ko wodd. tey la sax ci ginnaaw est-ce que amuloon benn vidéo bu doon circuler boo xamante ni dañ ci defoon mariage soxna Batoor donc mu nekk loo xamante ni affaire bi créé na. coono waaw soxna Batoor ah, ma mariage soxna Batoor a ah, même <laughs> question bi euh, euh, Marlo da lay waaj a takk dans la vraie vie wala. Marlo daf may waaj a takk dans la vraie vie. non dañoo dégg mais nag xam nga xam nga nag ah, ma laaj ma laaj est-ce que ah lu yéen da ngeen takk ma ndax da ngeen bëgg maa takk ma ndax ndax xam nga lan moo tax. Uh-huh. parce que tout le temps man seetlu naa. Mm-hmm. journaliste bu waxal. Mm-hmm. ah dana maan sa digganteeg maa waaye na ngeen bëgg man ak maa ñu ngeen dëgg wala la mais non même bu dul rafet bi mhm. parce que dañ leen di gis tout le temps ci kanamu caméra yeeg derrière caméra waaw parce que lu war loolu li waral loolu nga ca luus ma su cee ne lu ca ne li waral loolu mooy que ni maar yàlla def na ni sama góor la comme ni ma koy waxee tout le temps moom sama xarit la sama góor la man naa ne sama confident la yàlla def na mbëggeel yii lay commencé <laughs> mbëggeel yii yii xarit la sama meilleur ami après sama jëkkër la moo ciy topp sama frère la waaw mm. waa léegi yéen yeggalil dañ toog seetaan kon comme yéen way wax ngeen li yëpp dañ toog seetaan ada yàlla bottali yee day rek ada yàlla bottali yee yéen xam ngeen lan ngeen may ñaanal yéen xam ngeen la yéen ngeen lan ngeen ñaanal xam ngeen lan ngeen may ñaanal boo may mm-hmm. ñaanal da ngeen may ñaanal mm-hmm. maa takk ki mu bëgg tuddee ma ci doom ma dem Thiès xew fa ngénte sama sama sama mariage Thiès dëkk bu toj. loolu ñaanal ma ñaanal leen mais euh, d'accord ñu ñaanal la ko mais par rapport ak euh, say pare nga euh, tey xam naa ne ñàkkul ni am na ñu bari ñuy fëgg ndax rôle bi ngay incarné ci famille sénégalaise yi en tout cas góor ñu ci bari bu ñu sañoon am soxna su soxna Bator. ci jonge mm. donc xam naa ne ñàkkul proposition yi moom bari na fi tar. waaw man jigéen laa du ma ah, proposition yi comme nu mu demee noonu moo tax déggoo kenn ku ñëw soxna ba taw dama laa bëgg a jël soxna. déedéet ñëwagul de. amul kenn ku ñëw. gisaguma ko de. ak Sénégal nu muy bëree góor yëpp. ah gisaguma ko de soxna lu na ci yow ba gaa yi ñëw. gaa yi dañ laa ñemewul. Ah, est que du loolu tamit bu ma yóbboo seen kër dama koy tas est nga est-ce que est a <laughs> que joignable nga est-ce que accessible nga. Ah, loolu rek de. waaw waaw waaw waaw que accessible dooy dooy dem boîte dooy kenn. ah mais des fois lu ñàkk ci àddina dem resto mënul ñàkk mënu ñàkk ànd ak euh, ci ak bi la bokk. ci vie bi la bokk. Mhm. super super en tout cas vraiment kontaan nañu mhm. tey je sais wax waxloo nañu la. <laughs> parce que soxna ba door bu ñu toogee ak moom. Ah, waaw mais suñu ay question ngeen ngeen ngeen tarale mais amul problème. <laughs> voilà dañu la koy nangul mhm. que comme ni ñu ko waxee. yàlla daf la defal loo xamante ni tarkaal la succès bi xamante ni da nga koy joué ci famille sénégalaise mu am loo xamante ni vraiment daf ko def ci théâtre bu Sénégal ba noppi neex loolu Sénégal sénégalais encore dañu lay féliciter mhm. di lay souhaiter vraiment carrière boo xamante ni bu mucc ayib la une carrière à l'international comme ni nga ko bëggee plein de succès nga am ci vraiment trophée bu ci nekk ci musique bu Sénégal en tout nañu bu baax baax mhm. nest pas Fifita fans <laughs> waaw di leen jaajëfal di leen kontaane di leen wax ni bu leen bàyyi benn yoon li xam ne nii mooy famille sénégalaise mhm. di gërëm euh, sama yaay boo joo ci sa ngaari njar tamit sama yenaa yëri ma ca ndeer mama sayar wadd jama yaay Souleymane sama baay boobu nga xam ne nii moo tax ma tëddee nelaw dama yandoor mhm. nee naa bàyyi la ci biir baay yi ndax nee naa yow man mënuma laa gërëm mhm. ndax bu ma la gërëmee rek xam naa samay rongoñ day tuuru mhm. mais dama lay ñaanal yàlla ñaanal la sunu boroom mu tée la sàmm la aar la yiir la suturaal la ba nga fekke yàlla bu kenn seet dara dara sa gannaaw waat dama seer ndax téye nga say doom mm-hmm. téye nga say jabar ba ku leen xool ku nekk mm-hmm. dina xam ne ñu ngi ay loxo dama mm-hmm. yaay Souleymane maa ngi lay ñaanal de. doomu yaay nga wala doomu papa. <laughs> man doomu yaay doomu papa sama rakk dañuy wax ne man ni yow sama papa sama yaay yow lañ gën a bëgg <laughs> ma leen sama papa ak sama yaay ñëpp lañ bëgg. Oh. mais dañoo nekk yaay yoo xam ne nii. ay papa yoo xam ne nii man. man man man nee naa bu ma tiitul. wala jaaxlew ma rek. wala ma agsi fi ma agsi tey. yéen la ndax metti woon na. lool. ma gis leen mm. gisuma kenn nag ngeen tée ma yëkkati ma ba mu ba toogaat kon lu ma am yéen la nu ma mel yéen la fu ma àgg yéen la yàlla ngeen fekkee bu kenn si dara dara seen gannaaw oh là là là c'est vraiment émouvant c'est vraiment émouvant et lu nekk ci xolam peut-être lu mu yàgg denc la am et feeñ na mhm. partagé na ko aussi ak sénégalais yi mhm. ça a été un grand plaisir di ja am ñu jugee Dakar mhm. Sénégal 7 déplacé wu ci suba ba guddi ñu xoolee temps bi par rapport ak début bi ak léegi xam nañ ni ñoo ci ñëw nañ ci fajar waaye toog nañ ba mu guddi ñuy soog a ñibbi donc presque 22 heures alors ñu toogoon nag ak ki nga xamante ni mooy soxna Bator ay fu mu ko tëjee neexuma <laughs> très franchement parce que jooy yi day tax duñ ko mën a sànniwaat ay pic ça montre que ni part entière euh, tarkal comme ni ko ay naataangoom waxee mhm. euh, ñoom ñëpp kuñ ci dëkk micro lu rafet rek nga seede ci moom mhm.